asalaamaaleykum CDS famille Mor Fall Jones Gour maanaam euh, ñoom xamoon nañ ni. Euh, président bi ñëw ndax. police bi jiite Sandria am ñëwee xani opposite bi maanaam moo. da nga bàyyi yoon ba quoi.